mbokki internet chrono actu daal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene doore ak Bamba Fall mi nga xamante ne eh, daat nay fekk si président Macky Sall fas yéene ànd moom ma ci liggéey bi waral sax ñu ni kii démb président Macky Sall daal di koy tabb def ko ministre conseiller moom Bamba Fall nag ni kii tey jile daat nay jano ak waa Médina ngir indi leen ay gindi ak i leeral jëmale ko nag ci tànneefa bu ni mel ñu teewlu ko. ku nekk di jaay xam-xam mel ni kuy li sa xaar wax loo xamul moo tax ma gaaw woote pour ñu bàyyi analise yi nga xam ni tas réew mi lañ ci jublu wax ji compliqué wul man la ñu jël au mot man maa wax man maa gagné élection ñu tabb ma ma ni tàllal naa sama loxo sama mag yi ak yeneen parti yëpp pour ñu ànd defar Médina dimaa ko wax ma bëgg ñu ñëw jàppale ma ndax Médina baax ma dellu ñaanaat tamit ni bu élection jàllatee nañu moytu xeex yeeg yooyu yëpp ànd liggéey réew mi ba élection jotaat ñu dem mais loolu dafa amaan amoon Sénégal Ablaye Wade daan na def jamonoy élection bu jotee mu dem wuti bu jeexee mu ànd ak Abdou Diouf liggéey bu élection jotee moo ngi ñoom lan dina bàcc leeg ñeneen dans soxo génn dem wutiwaat ñëwaat man wax ji ma wax du tey laa ko njëkk ko wax mais daf ci am jamono joo xam ne bu information bariwul dañuy bëgg a jël lu ndaw bëgg ko def information pour am lu ñu wéttale seeni i rajo ak seen loolu nag laa dul may kenn parce que sama làmmiñ laa yor te ku wax naa la tontu kenn du ma wax loolu ma waxul parce que ëpp leen ma fit lu ma bëgg a wax danaa ko wax keroog bi sama nijaay génne àdduna ñu président yónnee délégation ñu may jaale fii ci sanca ba laa ni ko président Macky Sall gërëm naa la parce que ñeme naa li may wax ànd naak ay nit ba tey kenn tegu fi tànkam jaale ma kon boo ma yónnee délégation bu ni toll jaale ma xam naa ne am nga yëg-yëg ci man te ku ma lebal timis ma fay la guddi dimaa ko waxoon ma ni ko président pare naa lépp lu jëm ci liggéey réew mi loo ma ci woo dinaa la ci fekk dimaa ko waxoon loolu matul ñetti at ci gannaaw est-ce que wax naa fi lu bees changé wu ma sama discours maa diggoon président ni bis boo ma soxlaa soo ma wooyee dinaa ñëw mais kon loolu laa président bi beneen bi bi événement mars yi amee ñu bari déggoo leen xale yi Medina taxaw ni ñu kenn du yàq suñu commune naxanteeg policiers yi kafureetaan wooyandoo ak ñoom mu image bu rafet ci Médina ñëpp fan ci waa Médina président rappelé na ma ko ni ma vraiment image boobu ma am ci Médina daf maa frappé ba tey bi loolu weesoo saa yu Médina di tàng ñuy xeex di reyante Médina ngi lakk Médina ñu njëkk indi violance am ñu ciy kontaan parce que yaakaar naa ne jàmmi Medina soxalu leen ñoom tant que Medina ngi tàkk rek am na ñuy kontaan ñun nag ñooy nekk suñu magu bopp ñun ñoo dem ba gis ni kenn dootu ñu dugal ci ay xeex ak yàq suñu dëkk duñu ko liggéey ba nëga ni kenn duñu xeexloo kenn duñu waxloo wax ju salté kenn di dóorante parce que bu continuer kër yaa ngi tas bu continuer noonoo gaa ngi bari te élection bi jeex na mais xanaa du ñu pousse ko toujours ñuy continuer ay élections jeex man maa ni président Macky Sall ñun commune la ñu yor te commune bi démembrement état la maire bi fonctionnaire état la ndax état koy fay kon président du ñu sa noonu say démembrement la ñu ñu ngi ñaan nga may ñu doole ndax ñu defar Médina président ñu ngi ñaan amoon nañu ministre yu bëri ay jamono maa ko wax ci salle bi keroog fii de léegi président boo seetee amoon nañu 4 ba 5 ministres léegi Seydou kese fi nekk ak Cheikh Ba te yaakaar naa boo leen mayee doole su ma jaaree nii ñu jaar nii lépp daj di maa ko wax. pour alors pourquoi bi ma ko waxee kenn yëkkatiwul kàddu wax ñëpp ko rafetlu di tàccu man seeti seetiwuma président moo ma wóolu téléphone ma ñëw. man mu leer seetiwuma ko moo ma wóolu téléphone. muy kii yor Sénégal te ku mu woo nga wuyu. parce que Macky Sall mooy njiitu réew mi c'est le père de la nation. man maa ko wuyu ji su may wuyu ji Macky Sall. dama cee war a tàggoo non dama ni la. pour pourquoi Macky Sall chaque jour mu recevoir ku ne fu dëkk Sénégal bay recevoir ñu dëkk Medina te man duma ko yëg. te man Bamba Fall su ma wooloo xaw lu may doyee ma war a wër di tàggee non mais attendez quand woolu nañu ma mu teral ma ci dal gu ma sëkk ak ci mbaax ak yaru gu baax a baax a baax. mu ni ma man de bi ma lay woodee li ma la doon doy rek mooy fësal sama mbégte ak félicité la. ni ma wax dëgg yàlla ku iñaanul dina ni jàmbaar nga. parce que ñi yaakaaroon da ngay perte élection yi nga won gannaaw opposition bi nga taxaw jàkkaarloog samay ay gars yu am doole nga xeex ba génn ci Bamba jàmbaar nga. ni ma nag njàmbaar te googu. politique du tax ma iñaane ko wax ndax keroog bi problème marché bi taxawee gis naa ni nga taxawee xale yi Medina ni kenn du yàq suñu gox Bamba dëgg la duñu ñu ay ennemi de ay concurrent la ñu woon rek ay adversaire ci benn élection la mais bu passé ëppale wu ma la ci Sénégal billaahi wallahi a waxtu yàlla bi xale bi doon woy keroog Wally Seck seetaan naa ko télé bi mu la nee maa ngi lay ñaan nga woo sama nijaay Cheikh Tidiane ba ngeen liggéey nga jug taxaw ni ma la nga wax daf maa bett ni ma nga jóg taxaw ni ko maa ngi woo Cheikh Ba maa ngi woo Seydou Medina Medina ñëpp la du Medina benn maire du Medina benn bureau municipal Medina bu ñëpp bokk la kon na ñëpp ñëw ñu ànd liggéey ko ni ma Bamba j'étais fier parce que loolu moo war a nekk discours ñëpp te pourtant discours boobu ma wax de ne commune kenn mënu koo liggéey te doo ci boole état ñi jiite opposition bi yëpp te gagné maire yi ba ñuy def discours wax nañ ko démonté wante xëy na damaa am bu ñu amagul xëy na mu seen kanam président nekk ak man 23h ba 3h du matin ñu waxtaanee sujet réew mi yëpp lu ñu wax rek ma jox ko ci sama xalaat. mun na Bamba lu teree nga ñëw ànd ak ñun ñu liggéey réew mi. ma ne ko mais président man du bañ loolu. man du bañ loolu. parce que ku naa fekkul booy politique. bëgg ngaa dégg monsieur le maire honorable député monsieur le ministre wala monsieur le président de la république bu fekkee ne bëggoo koo dégg soxlaatul politique mu ni ma lan nga yaakaar ni su ma la ko defoon dinga ànd ñëw liggéey ñun man ko président foo ma teg baax na mais nag su ma sañoon di la jege di la conseiller ci li ma xalaat kon su ma nekkoon ministre conseiller maa ko wax loolu vraiment dinaa tax li ma xalaat yëpp dinaa la koy mën a yeggee mu nekk intérêt Sénégal kon ku wax président Macky Sall lenn tooñ nga ko yàlla dëgg la bëgg président Macky waxuma waxu APR waxuma waxu benn bokk yaakaar lim ma ñaan mooy ñaan na ko Sénégal gépp ni ma koo yaakaar ni mën na ñëw dugal loxoom pour Sénégal baax ubbil naa ko bunt yu mu liggéey mais c'est un républicain il m'a agréablement surpris man mi ni soxlaatuma beneen mandaa man mi dawul ci gannaaw dara man mi ni mandature bi du mandaa mandature politique mandature liggéey la te liggéey bi may liggéey li ma Médina jox def naa ko mais li ma mënul état war ma cee jàppale ñu bëgg ma nekk noonu état jël Médina di ko dóor ci kaw état mais Médina moo ciy souffrir duma ko def am na ñoo xam ne bu ñu bëggee golo bu ñu bëggee buubu golo dañ takk seen waa kër def ko seen buntu kër ndaxte man noo duma ma buubu golo kenn nag ku am faydalaa nag parce que yow sama problème yëpp maa ngi ci kenn ci ñoom ñiy wax kenn ci ñoom fekkuma ci dimbali ma ci bu Medina di sonn kenn duma ci dimbali tey jii tàngoon na jiir ci ay diwaan yu bëri fii ci Sénégal ndax nag union des ASP bu Sénégal ñoo wàccoon ci mbedd ma àndoon ci ak ñi di waa FRAPP France dégage doonub ñaxtu fii ci Ndakaaru Guy mari Sagna ak ay agent de sécurité de proximité ci rond point bu Yoff daal nañ fay génn laata ba jàmmaaroo di tabbi ci seen diggante ko ay takk der yi fale ci Kolda tam loole lañ fan nemmeeku waral sax ñu daal di fay teg loxo ci ay ASP buntuxataal ñenn ñi ba ñu jëlee ci ay gaañu gaañu naka noonu itam ci Fatick daal nañ fay teg loxo ay ASP seen directeur général Biram Faye di indi leeral di xamle ni statut bu ñu am ñoom ASP yi mayu leen benn yoon ngir ñu amal ay grève wax ci tiis mi nga xamante ne ki tey jile moom la ñu daal di nemmeeku ci VDN ba unité 15 bu Parcelles Assainies Ndongo Gueye mi nga xamante ne jàpp ko ci dimanche defaree réeroon ay mbokkam moo fa daal feeñ waaye nag fekkuñ ko ak bakken dañ ko daal di faat ñu teewlu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 boobule bande filao kenn ku nekk am ci parcelle yëmu ci ñoom dong ndaxte ay mbër ay délégué ak ay imam itam daal nañ leen sédd ci boobule suuf ci fàttali coopérative agent cadastre jëloon nañ fa juróomi hectare naka noonu itam syndicat mi njaboote waa impôt et domaine jëlee fa woon ñeenti ci ay hectare waaye nag loolee lépp nguur gi def ci taxawoon temb daal di koy niilal daal di nangu juróomi ñeenti hectares yooyu yëpp mbokk yi internet Chrono Actu lii lañ leen indiloon ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg lay doon incha allah si geneen jotaayu xibaar jàmm ak